jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañu leen am kontaante ak mbegte comme niñ leen koy defalee saa su ñu kontaan bu baax toog ak ki nga xamante ne kilifa la ci ñun waaye kilifa la ci monde làmb muy suñu papa Bira ñu di ko ñaanal gudd fan ak wér ba mbébét bi nga xamante ni am na ko ci làmb yàlla defal ko ci lu kawe njortam moom lañu dalal tey ngir fas yéene waxtaan ak moom lu baree bari ci làmb ginnaaw loolu dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu waxtaan bi président maa ngi lay nuyu. Eh, jërë ngeen jëf maa leen nuyu nuyu waa wasaare làmb yëpp. Mm-hmm. ah leen di gërëm leen di sant ci seen ñëw fii tey ci Arène Nationale. Mm-hmm. ci bureau CNG. Mm-hmm. président. Eh, làmb fan yi am na ay jafe-jafe yi nga xamante ni jot na ci xew. ba ñu ci bari ñu ngi ni président gisuñu ko dégguñu ko waxuñu ci. li ci njëkk hmm. mooy tëjub saison bi. jékki-jékki hmm. nañ rek ñu mel ni waa Rent DKR production organiser benn journée. ñu dem ba ci benn moment ñu jékki-jékki ne dañoo am problème service d'ordre. Hmm. loolu bi nga ko yëgee en tant que président ban gis-gis nga ci am ak noo ko yëgee. Euh, euh, ni ma ko yëgee mooy que ci ay correspondance téléphonique. yoo xam ne bu échangé ak ay autorités. ba ci fin ba euh, lañ tënk mooy que ne hmm, sécurité bi mënul génn pour làmb ji mhm. ca bés boobu mhm. ci laa ne kon bu fekkee ne sécurité du am euh, ci làmb ji làmb ji du mun a dem parce que sécurité moom mooy accompagner làmb mooy tax làmb am mhm. alors loolu nag euh, la ko waral autorité bi moom moo ko xam mais li ñu gëm mooy mbas mi fi mu toll ci réew mi. Mm-hmm. bëgguñu nit ñi def rassemblement yi bëgguñu nit ñi aussi dem déplacement yu bëri yi moo tax ñu ne euh, sécurité bi du génn ci bés boobu. Mm-hmm. kenn waxul ne sécurité amul dañu sécurité du génn pour ñëw n'est-ce pas assurer service bi ci ci ci làmb ji loolu keroog loolu mooy li ñu tënkoon. Mm-hmm. alors euh, mu nekk loo xam ne nag euh, métti na naam mais ni aussi da ngay dox ànd ak jàmm. métti na. ci axlu làmb maa ngi masawu promoteur yi waroon tëgg. Hmm. ci dimanche boobu noonu. Hmm. di masawu mbër yi nga xam ne entraîné woon nañ ba pare. masawu manager yi nga xam ne ñoom itamit préparé woon nañ. amateur yeeg écurie écurie de lutte yi. ñi nga hmm. xam ne vraiment defar woon nañ pour mun a accompagner seen poulain ñu leen di masawu ci loola. ndaxte diir bi koy tënk. ak diir bi kilo bi ñu leen koy wax gàttoon. mais noonu la mënoon demee. ndaxte xam nga cib réew am na nu fu mbir di toll nam mu demee rek. Mm. noonu lañ koy jàppee doxalee ko noonu. Mm. voilà ñu bari dañu ne dafa am benn erreur boo xamante ni CNG def na ko ci jour boobu. Mm. muy erreur de communication. parce que bu jiitee njabootu làmb keroog ñoo xam ne làmb jooju du am parce que CNG jotul woon ci guddi gi la veille mu jël téléphone am woo promoteur bi woo mbëri xamal ne làmb ji xew suba kat mënul am. mu gën mbër takk ngemb ñëw ba stade doo nga xam ne làmb ji amul. wax naa ko ci ay émission hmm. waxaat naa ko léegi ci réunion bi. xaaruñ ba bi ci bés bi ñu doog a wax nit ñi ne làmb dam walla du am déedéet. ah bon non non pas du tout. ci tàng tàng boo see am benn émission télé bu ci intervenir par téléphone ma ne mbër mu togg añ ñëw daf laa neex. Hmm. ndaxte la veille yëg nañ ko. ñan ñoo leen ko yëgal. CNG man suma téléphone. Hmm. yëkkati naa ko woo promoteur yi nga xam ne ñoom ñoo war a tëgg. ñu leen ni ñu ngi doxal ñu ngi toppatoo lii mais sotteewul. Hmm. te matul dañuy dem ci toogaat ab diir ma woo leen. Hmm. woo ñaari promoteur yi war a orga dimanche ñu leen ay la yéwén dox nañ wax nañ fexe lu ne mais mujjul sotti. autorité bi nee na mënul joxe sécurité. te xam ngeen ne sécurité bu amul làmb mënul am kon nag xam ne ne seen combat yi nañ ko dootul am. Hmm. ñaari promoteur yëpp ki waroon tëgg arène nationale maa ko suma téléphone yi bopp. Hmm. woo ki waroon tëgg Iba Mar Diop. wax également suma chargé de communication ne na wax ak nit ñi. Hmm. kon chargé pardon suma porte parole porte parole CNG wax ko nekkoon na wax ak nit ñi effectivement mu wax ak nit ñi. wax dugal ko ci ay site wax ay rajo ak ay télévision pour que ñu passe communication kon nag loolu bu ñu nee jour bi la xëy na xanaa kay ña ko yëg ca bés ba maanaam samedi. xëy na ñoo ko jottali ñi ko war a jottali wala dañoo ne xëy na nañ toog añ garaawul xëy na dañ ko réglé bu subaa. xëy na ci loolu lañ ci nekkoon mais man boobu nekkatuma ci loolu xam naa ne sécurité mënul am kon nag ma dogal ne làmb ji du mun a am. Hmm. dimanche loolu moo xew ci làmb jooju vraiment. Hmm. maa ngi leen di masawu ñoom ñëpp. masu sam bopp masu aussi CNG. Hmm. voilà. actuellement lan la ñuy xaar ci CNG bi ci ndimbal yi nga xamante ne mbër jot nañu préparer seen combat ñu dem ba ci bis bi combat bi avorté. Hmm. ban taxawaay ak promoteur bi yan taxawaay la ci CNG bi de bi di jël. bon xam nga taxawaay bi ñu ci mën a am rek mooy. Hmm. d'abord bu gënaaw bu ñu leen euh, ñu seet naka la ñuy def bi ñu ubbiwaat làmb ji mais gannaaw loolu. Euh, am na bataaxal woon dañ ko jébbal. Mhm. suñu kilifa. muy monsieur le ministre des sports. Mhm. bu ko defee moom dana mën a apprécier lañ ko bind lañ ko jébbal ndaxte comme promoteur am na lu ñu fi wax sànq ci réunion bi. Mhm. dañu wax dañ ko tënk ci kayit vraiment jébbal ko kilifa gi. loolu mooy li nga xam ne moo ñu war te dañ ko def incha allah ci bés di ñëw nii. loolu noonu euh, pare nañ pour def ko te am nañ yaakaar ne aussi. waaw am na fu ñuy yegg. Mm-hmm. xëy na ndimbal mun na am. Mm-hmm. waaye mënumaa di kenn dara tey ne ndimbal bii dina am wala bee dina am. Mm-hmm. non loolu mënuma ko parce que euh, CNG euh, mënul subventionné promoteur. non non CNG mënul subventionné promoteur. parce que daf ko amul. nekkul loo xam ne daf ko bañ yéen nañ promoteur yi ay milliards. mais CNG daf ko amul. kon nag fañ ko yaakaar foofu lañuy mën a dem pour vraiment porter pas parole yi. Euh, promoteurs yi nga xam ne sàkku nañ loolu. Hmm. loolu moo nekk ci wax ji. Hmm. Hmm. dañu gis ni fan yi am na lu ngeen di waaj muy fexe ba ñëpp ñoo xamante ne ay mbër lañ wala ay supporteurs lañ amateuru làmb yi ñu mbëri sensibiliser leen ba ñu mun a ñëw ñàkk ñàkk boobu dina leen dimbali bañ mën a ubbi euh, arène nationale wala ubbi làmb ji bañ delluwaat seen activité loolu nan nga ko gisee. Ah, loolu dafa nekk loo xam ne. xalaat bu baax la. Hmm. mu nekk euh, acte boo xam ne dafa am civisme. Hmm. xam nga nun sénégalais parce que waa làmb ñu dañu war a am ay actes citoyens. Hmm. yoo xam ne dañ ko boole di wone nit ñi jël ko gën ñu bëgg ca loola. moo tax bi ma déggee ne am na promoteur yoo xam ne ñu ngi waxtaan ma ne euh, danaa rafetlu lool ngeen ñëw bu altine ñu toog. autour d'une table ñu waxtaan. suñu waxtaani bopp te man la ma ci bëgg a jiital mooy ñu am une journée de vaccination dédiée à la lutte une mm-hmm. journée boobu buñ ko defee vacciné wu ñu ñëpp lu ko dalee ci président CNG promoteur bi manager bi écurie école de lutte bi mm. euh, entraîneur bi mbër ma supporter yaa fans yëpp ñu mobiliser wu ñëw vacciné wu mm. bu ko defee mbas mi dañ mbas mi moo tax ñu te suñu arène bi moo tax ñu tere ñu tere bëri. Mm-hmm. ñu ne ñun dañuy xeex ak moom pour mu jóge fi. Mm-hmm. xanaa buñ ko fi jëlee daañu ubbil pour ñu bëri. donc loolu nag dafa nekk loo xam ne ñëpp ci war a dugg. ak làmb yëpp war a jàpp dem vacciné wu. Mm-hmm. di porter masque yi. di laal gel di dandoonte loolu mooy dëgg. te ci la ñuy invité ñëpp nag. axlu làmb ñëpp ñëpp woo nañ leen àllarba dañ koy def incha fii ci arène nationale. Hmm. à partir de huit heures. Hmm. képp koo xam ne ñàkku nga indi sa carte bokk ci mobilisation bi képp koo xam ne ñàkku tamit nga ñëw ñu ñàkk la kuy ñëw da indi sa carte hmm. loolu mooy ci am solo. voilà jërëjëf président kontaan nañ bu baax xam naa ni. Hmm. li ñu bëggoon wax yëpp. kaa hmm. waxtu bi duñu ko may. te tënk nañu la ñu hmm. lay jaajëfal bu baax. ci dara maa ngi jaajëfal waa Wassare damay jot seen euh, vidéo yi. Euh, seen liggéey aussi rafetlu naa ko. yéen fu euh, fu ñu waxee làmb rek dem ngeen fa. loolu moo tax tey jii ngeen ñëw. lii du ñu ko nettali dañ koy fekkee teewee ko. jël fa luñ fu mun a jël ñu leen rafet li ko rafetlu. waxoon naa ca départ ne. ñun presse bi. Mhm. mooy suñu premier partenaire. dëgg la te bëgg nañ aussi ngeen ànd ak ñun ñu rafetal. dëgg la mbirum làmb. Mhm. di ci wax lu rafet. lu baax di ko wane tamit pour gën mhm. nit ñi mën a ñëw vraiment gën a ñëw ci làmb yi. am na ñu ñëw mais bëgg nañ Sénégal yi yëpp ñëw ci làmb yi. dëgg la loolu mooy wax ji jërëjëf. jërëjëf merci beaucoup. Eh, jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan wasaare làmb gis ngeen tey président CNG lañ dalaloon muy Bira Sène suñu papa. di ko jaajëfal bu baax di ñaan rek lépp loo xamante ni séentu na ko ci làmb yàlla defal ko ci lu kawe njortam ñu gën ko dooleel gën ko jàppale xam ni kat jiite mbooloo dafa jafe tey njiit kenn du ko tànnal sa bopp njiit yàlla moo koy def ci nit yàlla moo ko def mu jiite làmb ne leen ko jéem a jàppale bari na làmb yoo xamante ne ay paq-paq ay faxastal ak ay yu baree bare bari mu ngi am ci làmb nañ moytu loolu ndax loolu bokkul ci luy defar làmb li gën a ñaaw ci àdduna na mooy jiital nit ba pare di ko faxastal néew ma kenn mu ngi koy faxastal waaye nañ jéem a defaraat jikko yi jéem a defaraat toogaay jéem a rafetaatal làmb parce que bari na ñoo xamante ni tey lépp lu génn ci làmb rek dañu naan bettuñu woon kon nañu ngala nañ jéem a rafetaatal bu baax a baax a baax mbokk di leen jaajëfal bu baax di leen tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqalikoo ba ëllëg incha allah ci beneen xew làmb jërë ngeen jëf.